day ñëw di contredire mais teg ko ci xam-xam teg ko ci ay chiffres ñun niñ ko doon defee ñoom ba mu jaaxal leen ñu ne ñii il faut ñu faagagal leen ñun dañoo bëgg ñoom ñu defee ko noonu te kenn du leen faagagal kenn du leen jege ndax bu dee gis-gis ñoo leen ko ëpp bu dee xam-xam ñoo leen ko ëpp bu dee njub ñoo leen ko ëpp bu dee patriotisme ñoo leen ko ëpp kon mënuñu wax ba jaaxal ñu ñun dañoo bëgg opposition boobu am. waaye suñu moytul opposition du gaaw am de xam ngeen ndax lan seetu leen opposition Sénégal bi xam ngeen lan la ñu yaakaar ñoom féewale Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko loolu mooy opposition Sénégal moo tax ma ne opposition du gaaw a am ndax Bassirou Diomaye Alaaji Bassirou Diomaye Serigne Goundou ak Ousmane Sonko nit bi mun a dox ba féewale leen ki ko war a jur ki koy jur ak ki koy jur juddoogul moo tax ñu war a dem noppalu ji ndax bu ñu xamoon wallaahi bu ñu xamoon bu ñu xamoon bu ñu xamoon dinañ dem toogi wala ñu dem préparé dem defaraat seeni xalaat ñëw andi débat d'idées moo gën lii lañuy ñuy nag seetlu leen ko bu baax ñaar wala ñett wala ñeenti catégorie moo ci am seetlu leen ñoom ñëpp ak seeni i bu ñu xëyee rek ña nga ci Ousmane Sonko <laughs> dama ne keroog président Diomaye ma ne ko yow santal yàlla ndax yow li benn président mosul am moom nga am ma yow da nga am. fusible gars yi bu ñu xëyee rek ña ci Sonko te fusible ba nag dafa miin a miin a miin ba dara jaaxalu ko loolu mooy sa sens kon yow demal toppatoo sa diplomatie demal toppatoo sa armée demal toppatoo sa lii ak sa lii xoolal nooy orienté mbir yi te teewul nag man mi ñu jiite may chef de gouvernement dinaa gouverner de ba mu mat sëkk nag cocc loolu mooy dagg xolu gaa yi Sonkoy Jomaay Jomaayee Sonko moom lañuy bañ a dégg ba nee nañu tapis rouge bi morceau bi rek tapis rouge bi bu ñu gisee ma dox ci sax ñuy xataraayu ak maay dox ci tapis rouge dinaa ci doxa doxa fa mu neex ma jërëjëf jërëjëf ne bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo bu baax ñiy wax yëpp nag ñaar ba ñetti catégorie la xam ngeen peut-être première bi mooy ñan mooy ñi nga xam ne yaakaar nañ ni war nañoo mën a dellu si si nguur gi ni mu gën a gaawee te pour ñoom pour ñu mën a dellusi si nguur gi ni mu gën a gaawee fokk rek ñu fexe ba Sonko jóge fi comme ça ñu jàkkaarloog Bassirou Diomaye ñoom daal jàpp nañ tànk Sonko ngi ferenkulaay fi mu ferenkulaay rek mbir mi du du demee noonu ñaareelu catégorie bi mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ni. li ñu ñàkk ñoom mooy pouvoir bi ñu leen joxoon jox leen ko pour ñu liggéey réew mi ñoom ñu toog di ci noos di ci nguuru soo waxee ñu naan ku aaye wal sa moom xaw ma yu mel ne noonu jàpp nañ ni ñun ñoo leen yàqal seen aaye moo tax en bi ñuy bi ñuy dund ñoom en bi jëmale ko ci ñun du fi jóge ñetteelu catégorie bi mooy ñoo xam ne dañoo jàpp ni am na ñu ñu bëgg ci réew mi te jàpp nañ ni bu ñu demoon ba wéet ak président Diomaye dina gaaw waaye tànk Sonko ngi fii dina xaw a jafe ñooñu nag xam ngeen fu ñu juumee wallaahi dañu xamul son excellence ay bu ñu xamoon son excellence suñu xamoon seen ex son excellence dañu xam ni man maay seen jàmm man bëri na loo xam ne son excellence yëkkati ne ko fii ma ñëw ne ko monsieur le président ñaan naa la tegal ci suuf rek mu ji keroog daf ma xool ba si mu ne ma koromag ma ne quoi ah mu ne ma yow dama ragal ni gars yi dañ laa atteindre mystiquement de dama ragal ni dañ laa atteindre mystiquement son excellence le président basiru Diomaye du ñeexum ñebbe de ay suñ ko xamoon dinañu toog di ñaan bés bu ne yàlla na fi Sonko yàgg waaye nag weesu nañu foofu fi ñu toll nii ñun dañoo fas yéene jublu ci liggéey bi tàmbali nañ ko bu yàgg sax waaye maa ngi dellusi si doog a ñëw nag ci ñaareelu pàcc bi ñaareelu pàcc bi mooy li taxoon ñu daje fii li taxoon ngeen woo ma fii mooy lan lañuy xaar ci peuple sénégalais balaa ma naa lan la ñuy xaar ci jeunesse sénégalaise bi peuple bi yëpp laa bëgg a waxtaanal gis ngeen politique. amul lu ko gën a noble politique amul lu ko gën a noble ci àdduna yàgg naa wax ni nit mën ngaa matadi sa lépp manqué nga dem taxaw jàkkaarloog suñu borom mu seet la nga doon daj ngir sa askan mu ne na jàll loolu man gëm naa ko julli baax na koor baax na aji màkk baax na leneen ak leneen waaye sonn ngir sa askan gëm naa ni amul lu ko gën a noble moo tax gars yi ñoom affaire politicien la ñuy def politique wu ñu de ñun nag dañuy politique te nit ñi dinañu xam lan mooy suñu différence ci cadre boobu yàlla jox nañu réew mi ñu ngi ciy liggéey lu mucc ayib réew kenn du ko soppi ci ñaari weer kenn du ko soppi ci juróomi weer kenn du ko soppi sax ci benn manda waaye xam ngeen lu am solo mooy nga teg les fondamentaux yoo xam ne bis bu ne sénégalais yi bu ñu yeewoo gi nga teg jéego boo xam ne xam nañ ni fi nga jëm moo yóbbu Sénégal ci progrès ak développement ci loolu la ñu nekk ñaar moo mun a am soit ñu def la gars yi doon def mooy bu la yàlla joxee réew soit nga nekk ci benn agenda politicien mooy déjà yaa ngi xalaat élection bi di ñëw yaa ngi xalaat élection bi di ñëw militants yi wër la ku nekk naan la mën a mën a jox ma ñoo fi newoon di def lii ñoo fi dajoon lii jox ma jox ma nga topp ci loola waaye loolu weesul juróomi at élection dina ñëw ci juróomi at yi dina am benn élection wala ñaari élection wala ñetti élection waaye foofu la yem te boo ko defee askan yu jéppi la parce que askanu Sénégal li mu sanctionné ñi fi nekk lii rek la de du leneen ñaareel bi nag mooy suñu option ñun ñun xoolu prochaine élection ñi ngi sénégalais koo laaj lan mooy PSE xamu ko yéen ñi est xam ngeen lan mooy PSE lan mooy volet agriculture PSE lan mooy volet industrie PSE lan mooy volet financement PSE xamu leen ko nun duñu doxalee noonu gis nga changement boo ko bëggee def ñi la jiital il faut ñu xam foo jëm ku xamul foo jëm mënu laa gunge moo tax yi ñuy def nii yëpp di lappi waaw dund bi seer na ñii defuñu li ñaari weer dund bi ñoom ñoo ko seeral de ñoo seeral dund bi sàcc xaalisu réew mi jaxase mbir yëpp defuñu sax ñeeri ñaari weer xam nga ñoom suñu muusoon sax dañuy dem làqatu ba ci kanam ndax boo sàccee ñëpp daw ne wupp sàccee nga dugg ci benn ruq gaa yi romb gisuñu la waroo gaaw a génn de da war a toog foofu ba affaire yi dal ba guddi ba mu lëndëm nga yot ndànk waaye yow gaa yi demaguñu sax nga génn naan wooy waaye dina dina saf si ñoom dina saf sap sap sap sap ñoom gis na ñoom ñoom li ñu yàq ci 12 ans li ñu yàq ci 12 ans moom la ñu bëgg a wëlbatiku gëmloo sénégalais ñun ci ñaari weer lañ ko waroon defar est-ce que loolu xel nangu na ko 12 ans nga yàq réew mi yaxeet ne ñun ci ñaari at nañu régler lépp donte nag dinañu régler de bu soobee yàlla fii fan yu néew probablement semaine bii sax dinañu wax sénégalais yi mesures yi ñu jël pour wàññi dund gi bu soobee yàlla dinañu defar de waaye dama bëgg